mbokk yi seetaan ak di safo Sunugal 24 ñi ngi leen di nuyu di leen jiyaar di leen delloo seen waay euh, tey ñu sol suñu dàll fa seen dugg ci askan wi waxtaan ak ñoom ci ndaka la ñu gisee campagne de vaccination bi nga xam ne door nañu ko ci talaata bi ñu weesu ñu gis ne itam autorité yi commencé nañoo vacciné wu ngir jéem a convaincre askan wi ngir ñu mën a bàyyi xel ci lii di vaccin yi ne amul benn effet secondaire ak polémique yi ci jot a jib yëpp ñu jéem a xool ndaka la nit ñi jàngatee autorité yi nga xam ne jot nañoo vacciné wu wu ak seen xalaat ci vaccin yi ndax dinañ vacciné wu am déet dañuy dal di dekk suñu micro ñenn ci ñi nga xam ne ñi ngi fii tey euh, ngir ñu mën a joxe seen xalaat ci lu ni mel. bi ñu ngi lay ziar tur bi naka la. man Ibrahima Daawa laa tudd. ñu gis ne door nañ campagne de vaccination bi gis ay kilifa yu mag commencé nañ ñàkku est-ce que loolu mën na convaincre askan wi pour ñu dem ñàkku ji. waaw loolu tamit kilifa yi bu ñu ñàkkoo maanaam loolu tamit exemple la lu baax la lu baax la bu président ñàkku loolu tamit mën na pousser population bi ñu gëm loolu mais man dama jàpp ne ñàkk yi dem ci semé ay doute ba pare parce que coronavirus bi ba muy soog di ñëw gis nañu des vidéos partout sur le net ñii di wax naan feebar bi dañ ko lancé mi ngi accompagné ay vaccin yi war a ñëw ay poison la et tout tu xam nga loolu tamit dañ koo dugal ci xelu africain yi ak video yi nga xamante ne nii tamit dawoon na ay France 24 ay Antino Guterres li ñu doon wax affaire yooyu noonu tu xam na yooyu noonu tamit ñaam dafa ñëw tax nit ñi maanaam xaw a ragal sax vaccin bi maanaam dañuy seme ay doute ndax vaccin bi baax na ou pas parce que ñoom tamit waxoon nañ ci ay wax ci ginnaaw ay Antonio Guterres boo ko xoolee ci ay weer ci ginnaaw bi muy génn France 24 xam nga lu di wax ay Afrique dina xa dina boo deful ndànk den am ay millions de morts affaire yooyu tu vois ak yenn réunion si ginnaaw yoo xamante ni nii feebar bi maanaam dafay xaw a niróog li ñu programmé tu vois. Euh, loolu noonu après bu ñu ñëwee andi vaccin yi ak yenn vidéo yi nga xam ne gars yi amoon nañ ko si réseaux sociaux yi vidéo yi doon yàq ak affaire yooyu noonu dina dina tax ñenn ñi dinañ am ay doute ci vaccin bi mais vaccin bi moom Macky Sall bu président vacciné woo loolu tamit c' est une très bonne chose c' une chose à saluer loolu tamit lu rafet la parce que gis nañ sax ay kilifa yu mag ci Sénégal ñu vacciné wu pour rien que pour rek nit ñi mën a am courage gëm vaccin bi que c' mën a dem vacciné wu loolu tamit lu rafet la maa ngi koy rafetlu lu vrai. est ce que pare nga pour dem vacciné wu ji. vaccin yi en tout cas du ma ne pare naa du ma ne pare wu ma mais maa ngi xaaral comme ñoom dañoo wax ne premier lot bi pour personnel age yi la ak personnel de santé bi. ñooñu tamit dina leen maa ngi xaar ñu euh, vacciné wu ba pare ñu accompagner wax état bi tamit ñu accompagner leen ñu vacciné wu ba pare beneen loo bu ñëwee ba nga xamante ne ni pour ñun jeunes yi la bu ñëwee ñu xool incha allah. non non ndax vaccination ñun euh, euh, wóoluñu ko quoi waaw wóoluñu ko. même kon yow pare ko pour vacciner wu. non non man pare go pour vacciner. waaw man damaa nekk ci euh, ci bonne santé quoi waaw. yow daal dara jotu la. dara jotu ma. mais est-ce que doo dem vacciné wu ji pour aar sa bopp. non non man man moom nii laa mos mel quoi. waaw moi je suis on euh, je suis euh, ci ci <laughs> ci kii bi quoi ci ci santé quoi waaw. kon léegi lan ngay wax sa morom yi ñu dem vacciné wu ji wala. non non sama sama morom lu ma leen wax mooy bu leen vacciné wu quoi ndax loolu xamuñu ko waaw. lan nga jàpp ne moom la war a def ci yow ba tax nga lànk ne doo vacciné wu ji. ah man kay gaan xaar ma xaar ma bàyyi nii sama yaram bi nii man moom euh, damaa nekk ci euh, ci bon état quoi waaw. en fait euh, maa ngi leen di nuyu si nekk turam ak santam. maa ngi liggéey première bête pari foot en fait euh, vaccination yi man moom ànd naa ñu pour ñu vacciner quoi parce que yaakaaruma ne war nañ mën a dugal si réew mi loo xamante ne ñun dañuy lor. malgré ñu bëri ànd nañ ak Macky Sall man mii di wax ni sa ànduma ak moom mais ko vaccination yi mu dugal si dëkk bi d'accord naa ci ak moom parce que bu fekkee buñ vacciné lépp euh, dëkk bi euh, ñëpp delluwaat seen activité ñu bëgg a voyage voyage ñu bëgg a defi leen defi leen pour vaccination buñ vacciné mu jaaraat si yoon lépp tegaat si yoon nañ vacciné ñu delluwaat si mais nañ bàyyi gars xelu tubaab yi ñu jël di ko def seen xel naan buñ vacciné dañuy dee wala dootuñ am doom wala dañuy yoom am doom ak yàlla la aju yàlla si fukk rey si juróom-ñeent du bind si euh, téeméer rey si fuk mënul nekk. yàlla lim bind sa jalaa kuliyal bala ngaa dee di ko wala li nga war a dund di nga ko dund kon d' accord ma ne buñ vacciné dañuy dee wala duñ am doom man d' accord bu fekkee vaccination yi buñ vacciné feebar bi dana fi jógee ñu vacciné ku nekk delluwaat ci activité man man naa si vaccin pour que paa yi laa dégg ak maire dañuy dañuy inscrire mais buñ jàllee a inscrire pour vacciner man dinaa ko en tant que citoyen en tant que xale boo xamante bëgg na léegi te daa bi nga xamante ne mi ngi daan dooleem d'accord naa si côté boobu noonu mais nañ bàyyi xale yi ñuy théoriser di yàq seen xel ñi ñu jiite ak ñi nga xamante ñoo nekk ci tele yi da xale yi dañ leen di bàyyi xel nañ bàyyi xel bu baax ci li ñuy wax bu ñu ànd ak ma sàmm wala ànd ak ma dem di wax loo xam ne day déstabiliser réew mi day déstabiliser xale yi man ànduma ak Macky Sall ànduma ak Sonko ànduma ak kii wala kay mais dama bu dëgg jotee dama koy wax Macky moo fi ne sam dañ ànd ak moom ba mu jógee fi ñoo indi keneen mais bu ñu ànd ci affaire xeet wala affaire leneen ba def leneen loo xam day taal mag ñi nañ wax mag wax am na liy raam ci bi la jëm bu ñu seetaan lii ki ñu war a waxal muy Macky wala Sonko nañ wax ak ñoom dëkk bi tegaat yoon ñu nekk si li ñu war a nekk. mais Macky tey lay vacciné wu loolu ban lecture nga ci waaw mais lecture bi ñu nekk si leneen mais Macky doful dof boo xam ne day jël vaccination du ko dugal si réew mi ñuy vacciné di dee amul sens boobu wala mu am importance boobu loolu soxalu ko do tubaab bi lu mu doon tubaab Macky Sall la africain la sénégalais la kon soxla du dugal benn vaccination si dëgg ba dañuy vacciner ñu ñu dee mu dugal loo xam ne dañuy dañuy dañ day gasaxal réewam wala day déstabiliser du ko def doful gars nañ bàyyi loolu ñu dugal si xelu xale yi barki Serigne Touba. waaw mais comme ni nga ko waxee rek parce que vaccin vaccin yi moom ca début ba la quoi parce que boo seetee début bi gars yi ni ñu ko doon waxee ne vaccin yi baaxul ñu koy gis ci réseaux sociaux yi boo dee jigéen dalay tere am doom yu bari bu fekkee góor tamit xam nga daam fu lay yóbbu. donc loolu moo waral ñun suñu genre gi nag ñu ci bari wóoluñu vaccin yi quoi mais comme njiitu réew mi dem na ba xool affaire yi ne moom kat war naa mën a vacciner wu bi affaire yi ñëwee donc ah peut-être ñu ci bari dinañ dellusiwaat pour mën a dem ñàkk ji mais man boog ah wóolooguma ko 100 pour cent néew ma nag baaxul new ma vaccin yi baaxul mais wax dëgg yàlla sama point de vue wóolooguma ko 100 pour cent quoi. pour dem vacciner wu non fii ak deux mois daal peut su fekkee ne ñoom li ñu defagum gis nañ ci résultat bon boobaa nag gars yi mobilisé woo dinaa ci bokk wax dëgg yàlla parce que man luy jariñ réew mi rek ci la ci ci la ñuy dox nag wax dëgg yàlla. no franchement parler aw ci yaakaar nag aw ma yaakaar ne mun na convaincre gars yi parce que chaque fois <clears throat> li may dégg jeunesse bi di wax affaire yooyu mooy ñoom fas yéene wu wu affaire yooyu parce que tamit xam nga feebar boo xamante ne yow. yaa ngi dégg temps de mort temps de lii boo xam te yow amoo ci benn mbokk bu mu rey wala benn mbokk boo xamante ne dal na ko ba nga seeti ko hôpital kon ñu mën a convaincre bañ ne dañuy vacciner wu quoi. Euh, léegi euh, Macky Sall tey la war a vacciner wu loolu aussi lan nga ñu ci mën a wax. Macky non franchement parler nag euh, côté boobu noonu quoi man moom vaccin bi je suis contre franchement parce que fas yéene wu ma vacciner wu te samay mbokk aussi fas yéene wu ñu vacciner wu. lu waral loolu. parce que man feebar bi laa gëmul. Euh, léegi lan ngay wax jeunes yi nga xam te ne nii tey jii ñoom pare nañ pour dem vacciner wu ji doo leen encouragé ñu dem vacciner franchement parler moom conseil wu ma leen waaw man sama xalaat bu gàtt moom mooy que képp koo xam ne citoyen sénégalais la war na mën a dem vacciner wu parce que première dose yi mën na baax waaye yii ñëw wóorul ndax mu baax waaw loolu daal laa amoon si lu may wax si vaccin yi euh, kon yow pare nga pare nga pour dem vacciner ah waaw bu baax kay man de inscrire naa ba pare waaw ah, naa ba pare buñ ma woon suba ne da ngay vacciné wu ma dem vacciné waaw. lan ngay wax sa morom yi. ah ñu jéem a dem inscrire rek parce que wóorul mën nga ne doo inscrire ñu dem ba si biir ñu jaay vaccin yi te loolu bu bu bu boobaa dina doy waat trop waaw. Euh, fii daal café gi ñëpp fas yéene nañoo vacciné ah loolu moom mënu ma kaa assuré ñëpp mënuñu ñëpp ñëpp fas yéene wuñu mais sama bopp xam naa ne inscrire na te dinaa vacciné wu buñ ma woowee. borom café gi doo ko wax mu vacciné wu comme moom mooy jaay café gi te nit ñi fii la ñuy toog. Euh, soxna si borom kafe gaa ngi nuyu laaj ko ndax moom day vacciné wu ba pare moom mu ngi ne mën na la tontu ah. ngi lay jaajëfal. jërëjëf. daa mel ni café gi neex na de. neexul dara.